kooku lan la def ci biir biir baax daanaka moom bët yi ñuy boole ak ñoom dara. waa ji mi ngi naan alhamdulilah rabbil alamin. Ibnu Mubarak comme borom xam-xam la mu daal di koy romb. jàll. romb bi ni waaw. si kii moom am na lenn nu mu defee lu muy sant yàlla. mu ne kii daal aw ma tur ne laaj moom lan la ko yàlla defal muy sant yàlla. rawatina ne waaw yow dañ laa romb sànq yëpp yaa ngi wax alhamdulilah nag yow lu la yàlla defal ak lépp yële dal yëpp yëpp mu siggi xool fukk na li ma yàlla defal ci ay xiiwal woon dama sax mën a wàññi mu ne ko xoolal dëkk bi ma dëkk wala ay ay yéefar la man yàlla def ma nekk jullit mu ni loolu ma yàlla defal moo ëpp li mu leen defal ñoom fuuf moo tax ma di ko sant ndax bu ma defal ma nekk yéefar xaw ma fu ma koy waxee ci allahu akbar mbokk yi ndax ñun ñu ngi yéeg yéeg yéeg boobu ñun ku yàlla sowoon loolu say tànk ci dagg ñaari say loxo ci dagg nga xam jeexal nga ci dund gi allahu akbar da ngay jàpp ni yow maanaam misère di misère bi xalaat naan bokkatuma mën naa tax sax nga dee waaye kooku mi ngi sant yàlla pourquoi ndax kooku ku amul yëg-yëg la am na benn saxaaba boo xam ni ulama u siyar dañ koy nekk ni saxaaba bu kéemaane la bu ñu abu xilaaba siiwut waaye yàlla yi ko woon mu siiw waay abu xilaaba la tudd boo demee ci àllu siyar benn waay neen dama génn dem ba ci àll bi ma rabu benn waay boo xam ne fi mu toog ah luy xeeti nag tànk ya loxo ya bët ya ñett yëpp la boole bu ci nekk dafa sikk te ab saxaaba la saxaaba yonente bi sallallahu alayhi waa ji toog benn fanaan ki nekk la xutba bi nee na may dem ba mu yàgg ma romb ko li ma ko rombee mu daal dégg sama baat daal may woo bi ma ñëwee mu ne ko waaw mu ne ma man day dafa am sama doom bu ma nekkaloon fii moo may defal lépp ñetti fan a ngi nii gisuma sama doom dégg ma kaa waral ngir yàlla ndax man mënuma dara moo may defal lépp mbokk yi xoolal koo xam ne lépp moom dañ ko koy defal waa ji ne dama dugg ci àll bi di ko wër di ko wër ndeke xale bi dafa doon dimbali baayam dem ba ci àll bi gaynde daal di koy faatu lekk ko waa ji ne na ma ñëw romb xale bi noonu léegi nag moom am na beneen problème moom nee na xam na ne xale bi dee na waaye bàyyi jeeg ni mel su ma dikkee ni ko sa doom bi dee na maa du ma ko yokk problème ba mu dee léegi nan lay waxee bàyyi ji sa doom bi dee na mu ñëw ba ci bàyyi ji taxaw daa ne quoi man kat demoon naa ci li ma ba léegi xamul ne ab saxaaba la te xoolal saxaaba ko am fadila soxru mooy ànd ak yéen saxam nga xam ne ñooñu ci ñi gën ci mbindee bi lañ bokk mu dikk mu daal di koy waar fàttali ko ci yàlla nee na daal di koy wax ni ko ah yow day yàlla def na la gën sa doom di nangam mais bu ne sa doom di nangam ne daal di yëkkalilu rek war a jaare jéeg léegi moom xamul ba léegi ci moom ne am nañ moom ne kon naa ko rey ndax maa ko wax fitna ji ko rey yàlla ko dogal mu dee nee na muy wër ku ko xam di wër ku ko xam kim njëkk a dajal dafa sukk ci kawam di jooy xam nga lu doon jooy xam nee na ko xam ne ni kii mooy abu xilaaba di saxaabu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci la wax waa ji ne ko kii xanaa xamoo ko mu ne ko dée mu ne ko kii mooy abu xilaaba kenn la ci saxaaba yi mbokk yi xoolal ñu ñu leen yàlla doon nattoo Urwata ibni Zubayr ndeysaan magam buur la woon mu dem di ko seeti mu ànd ak doomam mu dem ba ci yoon bi tànk bi am feebaru cancer docteur bi ne ko faw ñu dagg tànk bi mbokk yi kenn ci ñun ku ñu waxoon sa tànk bi dama koy dagg mooy def allahu dañuy tax àgg bi jeex na fekk biir wallahi gis nga yàlla day natt nit fekk na waaye ku doon nag xóot ci safara la yàlla daal di gis fekk lu am solo ci moom nattoo ko ko ndax tegalee ko loo xàppal ko aljanna allahu akbar nee na mu docteur bi ne ko dañ koy dagg mu ne ko waaye nag faw ñu jox la sàngara nga naan ko pour mu yóbbu sa xel mi ndax dagg bi day métti mu ne ko subhanallah ma yëg métti di waaw muy dolli sama ngëm moo ma gënal nga may jox lu xaram ma koy naan daggam xam nga doon daggee si booba yii dagg léegi amul de wallahi si lañ ko doon daggee moom moo giñ ci yàlla mu ne gis biñ ko dagg wir bi yu mu doon jàng ci alxuraan gis boobu def na ko pour war na ñoom fi ñu tolloon ci jaamu yàlla mu ne li mu doon def ci jaamu yàlla ci jàng alxuraan gis boobu nee na gis boobu rëcc ko def na ko mu dikk ba yegg ci kër mag ji ñu gën a fa am fa ñetti fan doom ji di suqi fas yu suqi rek fas yu wéq ko bi mu ko wéqee mu dal ci kanam bi doom bi dee ñaata na songo ñaar li mu ñibbisee nit ñi di ko ndokkee di ko tees ndeysaan di ko nastaw mu ni lu xew daa am na xew ba ngeen lan lan la lu xew allahu akbar xool nit ñi di ko seet si ndax di ko masalu mu ne leen daal lu xew lan la yàlla jox ma ñeenti bagage ñaari loxo ñaari tànk mu dem bay nangu waroon nangu lépp mbaa mu nangu lu ëpp mu nangu benn ba kese kon kay la in axadta faqad abqayta yow kay bu dee yàlla am na loo nangu li nga def lu ëpp kon kay maa ngi lay sant si loolu yàlla kay ku gën a yor ndax yaa ngi ma jox ñeenti te bi ngay nangu benn kese nga nangu benn tànk doom mu ne yàlla may nangu juróom-ñaari doom muy nangu nangu benn ba des juróom-benn kon kay yàlla defoo dara ndax boo nangu woon yëpp ci lay gën a nit est ce que yooyu yëg-yëg mbokk yi tey ñu ngi ko yor nag malaayinul malaayin mi ne mi ngi am tamshi biha wala tadri téeméeri junni yi millions ay xéewal mi nga yow yaa ngi dox sa yëgoo ko ñaata kilo yi ngelaw ngay nooyi fay gis billahi alayka ka tëdd dante ka tëdd principal ka tëdd abaat ndaw ñu monteel ko ay appareil yoo xam ne oxygène lay nooyi kooku ndax da nga koo gis kooku ndax daa toon yàlla tax yàlla teg ko loola déedéet allahu akbar yàlla yow defalu ko dara ba dara booloo jeex bal kullu yawmin na ngay bidal ci bis bu ne la ngay bidal ci guddi sax doo ko jugal dul déglu ko te mi ngi la defal xéewal kan ci ñun kan ci ñun man de moom bëgg ma li may wax moom bëgg ma man man ku dikkoon ni ma kaay ma dagg sa benn loxo bii jox la ñaari milliards wallahi bëgg ma bëgg ma xam loolu loolu ak si nit ñëwee na ma kaa wax sax nit daa toog ba di ma wax loolu wala sa benn loxo bi ñun la ñaari milliards nekk yow kon am nga ñaari milliards de xëy ko nga ne man aw ma dara damaa ñàkk yow loolu nag kaay ma dagg sa loxo jox la ñaari milliards nga laan pourquoi parce que da nga gëm ni lii gëm ñaari milliards man de ku ma xool naa ma kaay ma jël sa ñaari bët yi jox la ñetti milliards yaakaar naa sax nit ñi ma ko wax ah kon nekk sama ñaari bët yi ma jëloon ñetti ñetti milliards ci xolu milliards ñu bare kon yow nekk naka malaayinul malaayin ay milliards yi milliards nga am te yëgoo allahu akbar léegi ci sa bëccëg rek maa ngi seetaan journal télé wala fajir ñu ngi ci li gars yi nga xam ne ñooy def ñax ñax ñax ñaxtu xam nga lan la problème mu jëli lañ am mooy ñi nga xam ne seen rein day yàqu gis nga rein bu yàqoo ah duñ ko mën a tawat ku ne sax ñun ñu ñàkk fayda yooyu nga xam ne ñun subhanallahi alazim ñu ngi ko sax bàyyi xel gis nga rein benn rek bu ci yàqoo benn bi rek bu ci yàqoo ah jëli ñu lay defal ah waaye ñaata million la wax treize million treize million war nga ko mën a préparer ak boo amul ku la dimbali li tax ngay mën a taw allahu akbar léegi ci bëccëg laa ngi am journée am na koo xam ne problème mu xol la am am na koo xamante ni problème mu nooyi la am am na koo xam ne am na koo xam ne ñun ñëpp yàlla mu këllu ci sa ñaari tànk ngay naan ci ndox mi ngay xiwlu ci xiwlu yàlla yi subhanallah te yëgoo ji ba léegi yaa ngi am ay xiwal ah yow da ngaa jàpp yàlla defal la dara wànneen wànnente rek wànnente siburu rek boo ko defee da ngay jàpp ne àddina bi tukki na saxaaba yi yonent bi dañuy leen siburu siburu ci boppam daa bokk ci lii xoos yaramu doomu aadama di ko musal ci safara moo tax siburu daa tàng ndax mi ngi bàyyi ko ci safara kon ku siburu dooy faral di jëfandikoo di xëppoo ndox lu bari yeneen ko feralee ndox Abu Hurayra mu ni kon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma def ma am siburu boo xam ne du ma teree dem jàkk bi du ma teree jaamu yàlla ba keroog may dee ndax ma am jiyaabay siburu moo tax foo ko fekk da doon siburu ba ni mu dee allahu akbar donc est ce que est ce que est ce que loolu ñu ngi ciy xalaat dëgg dëgg dëgg am na benn saxaabu bu baax maa ngi ko fiy nettalee ci maa ngi bëgg a fàtte tur wi Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn xam nga lan moo ko daloon timorit mooy feebar koogu timorit bu métt ba waat yi xadis boobu ñëw ci Buxaari Muslim yéen di naan jullit taxaw boo mën taxaw toogal soo mën toogal tëddal yéen di Imraan la ko waxoon ndax Imraan dafa amoon feebar timorit ba toog julli sax mënu ko mooy da ko muñoon nuñ ko rafet alxaafis ibnu Xajar soo ne lu jàll isaaba fi tamyiz saxaaba mu ne wallahi kaanat almalaikatu tusaafixuhu waqta saxaar mu ni fajar bu jot malaaka yi dañuy def délégation ñëw këram di ko jox loxo xool xéwal yi la yàlla defal lakal malaayin yaa ngi ay millions wa anta laa tadri yëgoo sax aw ma fu ma dëkk aw ma kër allahu akbar am ay nit yu dund ba dee màgget am ñaar fukki doom ak juróom-ñett te yàlla war sëg leen aw ma lan oto bu ma war allahu akbar yàlla baax te mën a programme da ngay julli di ñaan yàlla di ñaan yàlla li nga koy ñaan yàlla lànk bañ la koo may lu tax yàlla xam ne ni li nga koy ñaan baaxut ci yow te dalaa bëgg yàlla danaa bëgg te li nga koy ñaan baaxut ci yow naa dem Europe naa dem Europe naa dem Europe te yàlla dafa dogal ni yow dem nga Europe rek mooy kii danañ la bal dee nga te yàlla danaa bëgg di nga góorgóorlu am ci yàlla ba ci kanam allahu akbar dama bëgg moo xam loolu nag yàlla defaral la daal wa doomi tubaab tubaab ki nga xam ni bàyyam tubaab la nga xam ni dana dund ba dee moom du xam sax luy alquran dee daal yàlla tabal ko fa dara billahi alayka nga xam mokkal fatiha falaxi naas kese nga dee yàlla tabal la àjjana moo kee nga xam dana dund ci ay milliards ba jeex dee yàlla tabal ko safara lu gën yaa njëkk ay junni junni xéewal te yëgoo kon mbokk yi dañ gën a góorgóor loolu baax seytaane ñaari bët la ñaari bët la nu yàlla may bii day xool li la yàlla defal ci xéewal bii di xool li la yàlla defal ci safara seytaan day ñëw fekk benn baaraam fekk ko ci ba yàlla defal xéewal bu ko defee musiba yi rek ngay gis loolu ñun ñëpp lay dal waaye léeg-léeg buñ la fàttaliwaatee yàlla nag sa xol bi jëlu si nga nit la allahu akbar lii moo tax fàttali am solo nekkate man màmmoon naa kuntu ala safa xufratin min an naari fa anqadani allahu minha dem naa ba tiim kóos safar di waaj a sàdd yàlla xeet li ma kon mbokk yi ñu góorgóor lu baax am na koo xam dina dund ba dee ndeysaan bu xam lislaam am na koo xam day dund ba dee du xam iman kooku lu mu def dara am na koo xam day dund ba dee ndeysaan aamilatun naasibatun tasla naaran aamiya moo tax Omar daaloon woon benn juif Omar di ko xool di ko xoolam yàgg rek Omar di sukk di jooy ñu ne ko Omar nooy jooy ñu dama xam ne kii ak coonam bii mu daj te buy dee yàlla di ko tàmbal sax mi ngi jaamu yàlla waaye li muy jaamu yàlla baaxul parce que ku topp Muhammad gàtt na kon mbokk yi dañ gën a góorgóorlu baax a baax a baax wallahi saxaaba yonent bi yonent bi dina ne yaroon ci bëgg yàlla yar leen ci doylu yar leen ci am gëm yàlla yar leen ci gëm ni li yàlla def noonu rek la ma jeexalee benn jigéen pour wan la ni ñu gënoon a suqee ñu gënoon a sori sax jàngale yonent muy jigéen ñiy taal te waañ wa tax iman jooju foofu la ñu yeggoon benn jigéen bu ñuy wax xansa xam ni waykat yi ñi jàng suara ul jahiliya xam nañ ko dafa mën a wayam mën a way ba ndax avant muy dugg ci lislaam xam nga kan la paasale woon lijaayam lijaayam bu ñuy wax sax la ilaha illa mu dugg àll bi di way ay way naan gis nga bu dul woon ak nit ñi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi may jooyle ndax damaa ñàkk sax man xaru naa bu yàgg ndax bëggatuma dara ci kaw suuf mu ni jant bi sax su fenkee sax la may fàttali weer bi sax bu fenkee sax la may fàttali te lijaayam la ñàkk yàlla baaxee ko tuuti rek l'islam ñëw mu dugg ci l'islam bi mu duggee ci l'islam benn xare jot mu am yàlla wërsëgal ko ñeenti doom sun kot mu woo ñeenti doom bañ ñëw xool iman diggante daaw ak leen xool léegi iman def mu woo ñeenti doom ñu leen yéen dong la ma yàlla féet junna fakk laa leen bëgg rek sama diggante sawara damaa bëgg bu ngeen demee ngeen jihaad te bu ngeen demee yàlla ngeen fa dee ñaanal leen moo yëkkati mbubb solal leen xam nga sax salaf dañ doon def loolu yëkkati mbubb solal ko yëkkati jaaj solal ko ni ko bëggatuma nga dellu si ñeenti doom yëpp daal di dem faatu se am shahada li mu ñibbisee bi mu ko ko waxee mu wayaat way yu mel ni yam doon way ca safaan ba di ko wax ci lislaam bal sax bi mu toogee këram nit ñi bu ñëw ci buntu kër gi dafa wax jaam bu jigéen bi laaj ko bu dee ay jaalateeg ay affaire yërëmtal yow fenn bu mu dugg sama kër su dee daa ñëw pour ndokkeel si ma ndax yàlla defal na ma xéewal laa yu dem ko mu yëg subhaanal malikil aala kon mbokk yi laa shakka ni gis nga ñooñu seen dund bu dee li ñuy woote woo dëggu na ci ñun xaw ñu di ko jàngaat ñooñu ñooñu si ulaayka alladina hadahumullah ñii la yàlla gindi moo tax mënuñu fa bi hudaahu muqtadi boo bëggee baax da ngay seet fan jaaroon fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw gindeeku moom mënuñu wax lu danoo gëm comme ni saxaaba yi gëm ñu kon mbokk yi leen nañuy toog alam najal lahu aynay xanaa du yàlla ne na maa defal ñaari bët walisaanan làmmiñ ngay wax wa safatay ni ñaari tuñ muy tëj làmmiñ wa hadaynaahu najday ni ma gindi la ba nga xam yoon wi fa laqtahamal aqaba xanaa doo góor góorlu nga fexe pakk yi dox sa digganteeg sawara nga xel mu daanu wa maa adraaka mal aqaba li leen nga dugg àjjana lan la mu ni fakku raqaba boo amee xaalis gorelal jaab boo fekkee ko am problème dimbali ko boo fekkee kuñ tëj génne ko aw itaamun fi yawmin di masgaba wala nga fekk ku ñàkk amul lu mu lekk nga jox ko lu mu lekk yatiman za maqraba bu dee jirim bu la jege ci wàllu deret yàlla ne ne foofu la gën a baaxee ay miskinan za matraba wala ku ñàkk ba amul mat laa doon tëdd ci jóg lay tëdd kon nu ngi ñaan yàlla boole ñu defal tawfiq tey dellu si waat suma xel bu baax ba ñu xam ni li ñu yàlla defal ci ay xéewal kenn mënu koo lim la koy jeexal wala in tauddu ni'matallahi la tuhsuha wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi